mbokk yi dal leen ak jàmm damay nuyu comme ni mu koy amalee saa su nekk seen émission ëttu ndaw ñi émission ëttu ndaw ñi ñu amal ci Safina FM 98.2 mooy la fréquence bi nga xam ne fa ñu amalee seen émission ëttu ndaw ñi àllarba bu nekk 16h ba 17h30 manam juroomi waxtu bu tegalee fanweeri simili ci lañu amal seen émission ëttu ndaw ñi seen émission ëttu ndaw ñi nak day wax ci fànn yu bari parfois dinañ ko indi ñi waxtaan ci ay thème mo xam mu di environnement mu di société wala lepp lu mu mënti doon éducation santé bépp pàcc bu mu mënti doon dinañ ko yëkëti parfois tek ko ci table bi Babacar Kébé man mi wax ak yéen maa présentateur émission bi dama ci bokk ak ñeneen yi nga xamne nit ñi damay dendoo ak ñoom ku ci melni Salum Saloum Camara mu nek sama chroniqueuse ak madame Fall nek moom tamit chroniqueuse ci émission bi bu la nexé tamit mën ngeen bokk ak ñun ci thème bi ñi yëkëti modi lan da ngeen koy jaarale ci bu mu jokkoo bi di 88 628 10 95 88 628 10 95 bu ko défé ngeen bokk ak ñun émission bi seen émission eutu ndaw ñi àllarba bu nek sur la chaîne leader Safina FM la religion et la culture au service du développement ne surtout pas votre émission eutu ndaw ñi